jëfate sëriñ Saali wa xol bi yaajina ala kasirin mimman xalax naa tafdila ne tawfiix jooju doomu adama rek moo ko am ñi ngi sant sunu borom bi mu nu defee ñu doon ay julit laqad manna laahu على المؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ne daa fekk ne walakin almunafiqin laa ya'lamuun ne tawfiq jooju ne jullit yi rek ñoo ko am ñu ngi sant sunu borom bi mu nu boolee ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ne kuntum xayra ummatin uxrijat linaasi taamuruna bil maarufi wa tanhawna anil munkar ne tawfiix jooju xeetu yonente bi rek ñoo ko am ñi ngi sant sunu borom bim nu boolee ak Serigne Touba xulubu jumlati lazina aflahu liya tawajjahat warabbil muflihu ne tawfiix jooju ñi ànd ak Serigne Touba rek ñoo ko am ñi ngi baalu ñëpp àq di bëgg ci daayira Kanzul Muhtadina bu ngeen ñu joxoon ñu ndogu rek ci kër gi ñu yeeweeku lépp daal di mat ndax jox doomu aadama mu lekk dara gënu koo kawe joxe ñam ara ayta allazi yukazibu bi diin boo demee fa zalika allazi yad'ul yatim wala yaxuddu ala taamil miskin dañ leen di rëbb alquran rëbb ñi nga xam ne rëbb na ñi nga xam ne rëbb na ñi nga xam ne buñ déggee buñ tegee ñam buñ tegee ñam duñ ca am ak yaatal duñ ca am ak yaatal ci ñeneen ñu dul ñoom ci tegee bool rek boo tegee bool bi rek ne séeréer bu teg bool tukkulóor yëngutu mu dencaat ko ba mu dem mu doog koo génne ne sunu borom tagg na ñuy joxe ñam lool yàlla xalaat na ñu dul joxe ñam lool ndax joxe ñam lu baax la rawatina nag ci weeru koor kon nag ñi ngi leen di sant bu baax allazina hum yuraauna wa yamnauna almaun ne ab séeréer rek lay dal boo demee ba yàq ne gan na yub nga continuer baaral bam saxaraat boo demee ba yàq gan na yulub nga continuer baaral bam saxaraan ñuy togg xam nañ sa xaraan. nee ñuy togg xam nañ sa xaraan. sunu borom sunu borom. sunu na ñooñu. xalab na ñooñu. mooy ba tey ñu du joxe ñam rek. mooy ba tey ñu du ñam rek. kon nag. seen teraanga ji rëy na lool. seen teraanga ji rëy na lool. yaatu na lool itam. yaatu na lool itam. bëgg nañ ci lool itam. ne bii mooy première fois. ngeen di ko def. ci boo xam ne damaa ñëw teewe ko. mu demee nii ñu ngi ñaan bu déwénee lu ngeen ci xalaat rek ngeen daje jàng lu ko gën a kawe ci barkeb Serigne Saliou ne sant nañ bu baax a baax ne ñu ngi sant ku tedd kii ñu dendal Seydina Libaas Laay mi nga xam ne day dundal kullu werdin yuridul murida li hadratillahi walam yahida moo xam siwaun intama ilal aw intama li ahmada tijaani ne fan la imaamul mahdi yu dugge aw li siwahuma mi ngi ci biir aw li siwahuma sëñ Tuba limaa na leen tariqa bu dul bépp tariqa boo xam ne soobu nga ca mu jëm ci yàlla boo ko toppee da nga yegg ne yéen samay taalu taalube man sëñ Touba maa ngi leen di digal ngeen respecté tariqa yëpp ta war maa leen te koo gis mu jàpp benn tariqa nga war maale ko ko ndax kat naa yegg fa mu naa yegg fa mu jëm. ndax tariixa yëpp ndax tariixa yëpp. te yàlla la ñu jëm yàlla la ñu jëm. googu rafetal googu rafetal. yaa koy dox bu baax yaa dox bu baax. ngi la ci sant bu baax. yàlla na yàlla dolli la sutura. dolli la jàmm. ne bu waa kën su masaana ñëw fële ca daara ja di togg ay ndog ca kër ga. chaque année day tombeek nga ñëw fa sa kóllëre taxaran nga ñëw ba fii ngir wa awfu bil ahdi lu tax innal ahda kaana masulan bokk na ci li yàlla di laaj ëllëg lu ñu ko doon sàmmee mooy kóllëre kóllëre ci li ñuy laaj ëllëg yomal xiyaam moo tax lu dis la nga sàmm ko rek kon nag lay maxtaar maa ngi lay sant bu baax te di la gërëm nee sàng bi ñu demee bay waaj a julli daa am benn Baay Faal bu dugg si daal nuy boole ñun ñëpp daal nuy daal nuy boole ñun ñëpp ñun ñëpp murit tiijaan laayeen su ma nee murit Kansu Laayeen sëñ Libaas Tiijaan sëñ Lamin sëñ kon nag ki dugg si woon dafa jël benn baat daan na ci boole nu ñëpp yeew nu ba mënuñoo jóg taxawal julli ndax lam doon wax ndax lam doon wax boo ko xeebee sag julli yàqu muy la ilaha illa da doon sikkar baatub laa ilaha illallah. ne yeewu na ci ñun ñëpp. yeewu na ci ñun ñëpp. sëñ libaas mi. ak tariqa bi mu bokk. li ko boole ci lislaam. ci lislaam. laa ilaha illallah. laa bu ko weddee. bu ci génn ci. saxal ko rek nekk ci nekk ci. mi. ak tariqa bu la ko tënk ci lislaam mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mooy contrat bi indéterminé contrat indéterminé. contrat indéterminé. ci mooy laa ilaha illallah. muhammad rasulillah. alayhi wa sallam. loolu daa mat a bàyyi fii signé woo. fekk signé woo. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. kenn du validé contrat bi. ne kenn du validé contrat bi. ni ne. connecté nañ. connecté nañ. sa ruuxu. sa ruuxu. ca Malakut. ca Malakut. nga bokk ci jullit ñi. nga bokk ci jullit ñi. ñu man ñu man. diversi. diversi. say jëf. ca Lawhul Mahfuz. du wersi jenn jëf. du nu wersi. jenn jëf. te nungu woo. Muhammadu. Muhammadu Rasulullah. laa ilaha illallah nag laa ilaha illallah ko bokk nee ñëpp ko bokk. waaye li ñu wutale. waaye li ñu wutale. Muhammad rasulillah. te te laa ilaha illallah. te laa ilaha illallah. li koy validé. li koy validé. mooy Muhammad rasulillah. mooy Muhammad rasulillah. ñaari baat la nag. nee ñaari baat la nag. moom laa ilaha. moom na ngeen ma déglu bu baax. nee na ngeen ma déglu bu baax. koo dégg mu naan laa ilaaha illallah. nee koo dégg mu naan laa ilaaha illallah. bàyyi ko xel bàyyi ko xel. ak fu mu mën a bokk ak fu mu mën a bokk. Serigne Touba nee na Serigne Touba nee na. Fala tuaadu. Fala tuaadu. man man. raaytum raaytum. faahu faahu. lu muy wax lu muy wax. yuxriju yuxriju. laa ilaaha laa ilaaha. illallah illallah. فلا تعادوا من رأيتم فاه فلا تعادوا من رأيتم فاه يخرج لا إله إلا الله ku tedd ki nee na booy lim say noon nee na booy lim say noon génn ci génn ci gémmañ ciy wax gémmañ ciy wax laa ilaha illa allah ku tedd ki ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam dafa toog Madina ba yàgg dafa toog Madina ba yàgg mu woo saxaaba yëpp mu woo saxaaba yëpp ñu daje ñu daje mu ne leen ndax yëg ngeen mu ne leen ndax yëg ngeen ne man qaala man qaala laa ilaha illallah maratan maratan waahida daxalal janna ku wax laa ilaha illallah ku wax laa ilaha illallah benn yoon benn yoon mu dëggu ci yow mu dëggu ci yow ñu ubbil la bunti àjjana te dootul tëju te dootul tëju dem ba yàgg mu ne dem ba yàgg mu ne ndax yëg ngeen ne man xaala laa ilaha illa laa mi ata marra jaa a yawma alqiyaama wa wajhu tal badar ne na ëllëg da nga gis jëmm joo xam ne xar xanam bi day leer nañ buñ ko toppatoo da daan wax laa ilaha illa allah chaque jour cent fois moom laa ilaha illallah. ku tedd ki nee na. ku tedd ki nee na. xat quttalii. xat quttalii. bil alifil bil alifil. maxfii naylal maqaamaatil. naylal maqaamaatil. xoolaa xoolaa. bitay demal ci laa ilaha illallah. nee demal ci laa ilaha illallah. Serigne Touba nee na. Serigne Touba nee na. alif ga. alif ga. gën nëbbu. gën nëbbu. ca biir turu yàlla. ca biir turu yàlla. te boo koy wax te boo koy wax. du feeñ du feeñ. nee na waxul baat bi yëpp de. nee na waxul baat bi yëpp de. xaraf boobee rek xaraf rek. ci la ma sunu borom ci la ma sunu borom. taxañale taxañale. maqaamaatul ula maqaamaatul ula. bi tay bi tay yi. maqaama yu kawe. nee maqaama yu kawe. ci anam boo xam ne ci anam boo xam ne. bi ma koy jox bi koy jox. ci lu gaaw ci lu gaaw. tawaytu tawaytu. tariqal قد حدل حاجات بالروض والبس أخفالية سر مسونة الله حبا ولا إله إلا الله سر المسون لا سر المسون سر المسون سر المسون projecteur bii di tàkk. nee projecteur bii di tàkk. wala sa bët yi di tàkk. wala sa bët yi di tàkk. wala sa ruuxu gi di tàkk. wala sa ruuxu gi di tàkk. wala sa nopp yi di tàkk. wala sa nopp yi di tàkk. wala sa xel mi di tàkk. wala sa xel mi di tàkk. waxin la waxin la. loolu lépp loolu lépp. leer a koy doxal nee leer a koy doxal. gan leer. nee gan leer. neel sirul masuun. neel sirul masuun. fu mu ko amee. fu mu ko amee. xubban xubban. wala ilaha wala ilaha. illallah illallah. nee laa ilaha illallah. ku dugg ci islam. nee ku dugg ci lislaam moo la dugal moo la dugal. ku génn ci islam. ku génn ci lislaam moo la génne moo moom benn baat bi moom benn mooy saxal ak ngëm. mooy saxal ak weddi ak ngëm mooy weddi ak laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. booy départ ci ci gaar bi. nee booy départ ci gaar bi. fi nga départ. fi nga départ. ak fi télé bi di arrivé. ak fi télé bi di arrivé. mën naa bañ a bokk. nee mën naa bañ a bokk. waaye laa ilaha illallah. waaye laa ilaha illallah. ku tedd ki nee na ku tedd ki na. ku ci départ ku ci départ. ci ngay arrivé nee ci ngay arrivé. <laughs> booy dox jëm ci sa borom. booy dox jëm ci sa borom. ngir tëbb ci ay leeram ngir tëbb ci ay leeram. lan ngay wax lan ngay wax. laa ilaha. laa ilaha. illallah illallah. loo mën a romb. nee loo mën a romb. loo mën a traversé. loo mën a traversé. koo mën a dajeel. koo mën a dajeel. boo demee ba yegg. boo demee ba yegg. looy gisaat looy gisaat. laa ilaha. laa ilaha. illallah. fa nga doore woon. fa nga doore woon. ba nga xamagul dara. bi nga yéegee. bi nga yéegee. fa nga yem. fa nga yem. loolu ngay gisaat. benn baat. benn baat. laa ilaha. illallah. loolu moo tax loolu moo tax. baatub laa ilaha illallah baatub laa ilaha wax ni. Cheikh Rafal wax ni. ci la góor yàlla yëpp di rawee ci la góor yàlla yëpp di rawee. moom laa ilaha moom laa ilaha. jullil natal asaka nee natal asaka. ajal makka wooral wooral. ànd ak loolu lépp. ànd ak loolu benn baat képp ngay firi. nee benn baat ngay firi. ngay firi ci jëf ji ci jëf mooy la ilaha. mooy laa ilaha. xanaa illallah xanaa taxaw. da taxaw. jublu penk. jublu penk. allahu. ne allahu. lan mooy signification bi. lan mooy signification bi. koy waxal koy waxal. sa borom lu tax nga yëkkati loxo yi. lu tax nga yëkkatee loxo yi. farata la de. nee farata la moom la ñuy wax moom la ñuy wax. takbiratul. takbiratul. ihram ihram. takbiratul. takbiratul. ihram ihram. day jóg day jóg. ba toll ak say nopp ba toll say nopp. nga ne allahu nga ne allahu. ñu ne tek ñu ne teg. nga ne akbaru nga ne akbaru. loo yenu ba di ko wàcce. xanaa addina xanaa addina. addina nga defoon nii nga defoon nii. ba gis ko ba gis ko nga ne ko ak bëru nga ne ko ak rahimi alhamdu lillahi rabbil alamina ba wala daali naga ci confirmation ci confirmation bi nga nekk allahu allahu yow yàlla yow yàlla maa addina maa jàppoon tàmbali koo baab nag koo baab nag. mooy bismillahi mooy bismillahi rahmaani rahim. mu ne tekk di déglu mu ne tekk la déglu. nga jaar ko ci nga jaar ko ci. ismu zaati ismu sifat waxu sifat. alifu alifu. bisimilah bisimilah. lu tax lu tax. li kasra tisticmaali li kasra tisticmaali. li kasra. li kasra. tisticmaali. tisticmaali. xalqillaahi xalqillaahi. damal ca baaga damal ca baaga. wattu wilal wattu wilal. baaw baaw. bi bisimilah lu tax lu tax. taasuman taasuman. wa rafatan lillaahi. asaf gin asaf. nee asaf gin asaf. alif gi alif gi. ngir màggal. ngir màggal. baagi baagi. bisimilah ne bisimilah. moom kay xam na loolu. moom kay xam na loolu. da ngaa mën a tàmbalee ci leneen lu dul yàlla. a tàmbalee ci leneen lu yàlla. da nga koy jëloog rek. da nga koy rek. ndax yàlla ndax yàlla. li ko tax nekk yàlla. li ko tax a yàlla. ki la gën a jege yàlla ki la gën a jege yàlla. yàlla moom ne yàlla moom. dee ko tagg rek dee ko tagg rek. te di ko kañ rek te di ko kañ rek. tey feeñal tey feeñal. maqaamam maqaamam. ak kattanam ak kattanam. te gëm ko rek gëm ko rek. di ko gën a jege di ko gën a jege. bisimilah. xam na ko arrahman arrahman gi nga koy wax gi koy wax yaa ngi koy wan ko yaa ngi koy wan ne ko xam naa ne xam naa ne yaa séddale yaa séddale ci rahman ci rahman taxajoo kenn waaye yaa séddale waaye yaa séddale ci ci rahim cig maandu moo tax moo tax sikk sàkkoo ma ne malik yow mi diin li coow li bari bari bis ba ca kanam bis ba ca kanam yow képp yaay buur ba ma ko xamee nag ba ma ko xamee nag laa xam ne iyaaka naabudu soxluwumaa jaamu kenn ku dul yow te sax wa iyaaka nasta'iinu keneen ku ma fi laaj bis day ñëw ma dem fa ñu ne ma nekkatu fi ba mu des yow cey dëgg la kon damaa bëggoon ihdina siraatal mustaqim saxal ma ci luy tax ma nekk ci sag nekk te dituma ñàkk nekk mooy siraatal mustaqim boo ci tegoo doo effacé wu chaque jour chaque jour yaa ngi existé yaa ngi existé français <laughs> yi moom